yonente neena li war jullit ci jullit bi juróomi yëf la bu ko nuyoo na ko fay bu feebaree na ko nuy ji su génni àddina na dem julleehi ko denc ka gundee ka buñ ko woowee ngent wala ciyet na woy ji bu tisoolee موني الحمد لله نكون دوكل ني يرحمك الله